dañ daan xool ña ñàkk néew doole mbaa bokk ñu ci yax bu am solo te gëm yàlla dëggu ci njulit ga ñoom ñu weddi di leen xeeb naa ñii day fu ñu demee àjjana bu ëllëgee nu daanu fa dem ñoom ñu nekk ci laxaraaf nag biñ gisee ñu daan xeeb ñu nekk ci biir àjjana ñu waxanteeg yéefar yi nga xam dañoo amoon alal am daraja tax ñuy puuk réew bañ a gëm di weddee ko mooy gëmuñu àjjana ñu ne leen xanaa bi ñi ngeen daan xeeb naa ñi daal duñ dem mukk àjjana mbaa daanu ca dem ah ñoom day tey jii nee leen dem leen àjjana du am lu ngeen di tiit du am lu ngeen di jàq waxaan xiwaad bni ximaarin radiallahu anhu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inna allah naka yàlla aw xaa wax ñu na ilee jëme ci man an ay dawaa baxoo toroxlu leen woyof lu leen xataa laa yafxara dadu damu ahadun kenn xala ahadun ci kaw kenn wala yabxiya ak ba du boobu ahadun kenn xala ahadun ci kenn rawaahu muslim Xiyaad ko wax net li woon te bi daa waxoon ne saa boroom wax yu ne ma waxal jullit ñu leen ñoom ñëpp nag maasu ci toroxloo ko woyoflu ba kenn du damm ci kaw moroom kenn du xeeb moroom ma bay dow ci kawam di ko jàpp na rek moom du dara moom mooy dara wa abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qaala maa naqasat wàññiwut benn yoon sadaqatum sarax min maalin ci alal wa maa zaada te yokkut allahu yàlla xabdan ab jaam bi afwin ci sababu jéggale illaa hisan dara ak tedd wa maa tawaadaha toroxluwut ahadun kenn lillaahi ngir yàlla illaa rafaxahu dara bu ko yëkkatee allahu yàlla rawaahu muslim abu hurayra moo ne yonent bi nee na woon alal daal moom génn ci sarax da ko yokk waaye du ko wàññi am na daa bëgg wax ne bu melee ni wàññiku na itam barkeel ko ko yàlla yu barkeel mooy tax daa yokk waaye wàññi ko wut am ñu ne tuyaaba ji ñu koy jox ci àllaaxira moom la jublu ci ne du wàññiku ci sarax ga ca borom saraxe ba tax sara bi naa wa zakaroo fi maana qawlihi ma naqasat sadaqat min maalin wajhayni ahaduhuma anna hadama nuqsaani fil maali ahaidun ila dunya bil barakati fihi wa daf'il madarrati anhu wa thani annahu aidun ila al axirati bit tawaabi wa tadhiif mu ne ba tey ab jaam saa yu mënee fayu bañ a fayu jégalu rek ngir yàlla loolee faaw yàlla da ko ci yokkal rek tedd ak jëm kaw ab jaam daal saa yu mënee fayu jéggale te yàlla tax faaw rek yàlla da ko ci yokk teraanga yokk ko ca yëkkatiku jëm kaw mu teg ci ne ab jaam saa yu rafloo te yàlla tax faaw rek yàlla yëkkati dara jaam ndax faye ko noonee mu suufale boppam te yàlla tax waxaan anasin radiyallahu anhu annahu naka moom mar romboon na xalaa sibyaanin ci ay gone fa sallama te mu nuyu alayhim ci ñoom waxaal te mu wax ne kaana nekkoon na annabi yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yafxaluhoo di ko def muttafaqun alayhi anas daa xaw a nuru ci am nekk na yonante bi anas ci boppam nag daa romboon ay gone nuyu leen li tax bu nuyu leen kat mooy damaa gis yonante bi daa romb ay gone di leen nuyu yonante bi kon ak woyofam moo taxoon gone yi sax xeebu leen bu leen rombee da leen di nuyu wa an xujale ci anas ba tey xaala in kaanat naka nekkoon na al amatu day fi waaye dafa jublu rek xale bu jigéen jublu rek jaam bu jigéen dëgg-dëgg al amatu jébbéer min ima il ci jébbéeri madina in kaanat naka nekkoon na in boobu inna ji woyofal la la di jàpp bi yeddi nabi yi ci loxol yonante bi sallallahu alayhi wa sallam fatan dem mooy te boy bi ak moom xayu shaat fu ko soob rawaahul buxaari yu daa waaye faral bopp lool ba nga xamee ne xale bu jigéen bu ndaw sax mën rek jàpp ci loxoom donte bëgg lu ko neex topp ci moom rek mu koy ñoddi muy topp ci moom fu mu jëm rek mu jëm fa waxanil aswad ibni yasid qaala su ilat laajee foon na xaïchatu soxna aïcha radiallahu anha maakaana ana lan la nekkoon an nabi yonante bi sallallahu alayhi wa yasnaaw di ko def fii bari ci ci néegam ba ci këram xaalat mu ne kaana nekkoon na yakunu di nekk fii mihnati ahlihi ci liggéeyu waa këram yaani dafa jublu yaani xidmati ahlihi liggéeyu waa këram maanaam fii xidmati ahlihi fa iza xadarat ndem teew na asalaatu julli ga xaraja mu génn ila salaatu jëm ci julli ga rawaaxul buxaari yu ku ñuy wax al aswad moo ne dañoo laajoon soxna Aysa ne ko waaw yonte bu mësaa nekk ak yéen ci kër ga nu jigéen ñi di ko liggéey mu nekk ci dim ci dimbale bu waxtu julli jotee nag mu daal di bàyyi lépp dem ci julli ga waxaan abi rifaahata tamim ibni usaydin radiallahu anhu qaala intaxaytu àggoon naa ila rasulillahi jëm ci yonante yàlla la sallallahu alayhi wa sallam wax wa te fekk na moom booba yaxtubu ma nga doon xutba fa qultu ma ne ko yaa rasulallahi rajulun man day waay laa ku di ab doxandeem jaa ko dikk na laaj an diini yi walis diineem laa yedri du xam maa diinuhu luy diineem fa aqbalati rasulullah yonante yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam wa tarakate mu bàyyi xutbatahu xutbaam ba xattantaha ba mu àgg ilee jëm ci man fa utiya te dikkeef maanaam te andeef rek bi kur si yéen ci ab toogu fa xarte mu jekki alayhi ci moom ba jaxarte mu tàmbali yoxal li mu ni dima xamal mi maa ci la nga xamee ne àlla na ko yàlla tuma ataa topp mu door a dikkal xutb ba taxaw xutbaam ba fa àttam ma te mu mottali aaxiraha mu jëm nga rawaax muslim ku ñuy wax abu rifaaha ci dàkkental mu tudd tamit ibnu usaydu moo ne damaa ñëwoon ci yoon bi fekk muy xutba ma ne ko man day dama di ab doxandeem boo xam ne dafa umpale luy diine bëgg nag nga xamal ko luy diine daa mel ne ba bi nekkutoon ci xutba ajjuma benn xutba la woon rek yonante bi daal di taxawal xutba foofa ñëw ba ci moom tamit mii ñu tegal ko ab toogu mu toog ca ndax mu gën a mën a jot wi daal toog ca toogu ba nee na daal may xamal bu baax li ma umpale woon ci saa diine door a jàll na xutba ba àggale ko waxan anasin radiallahu anhu anna rasulallahi naka yonante yàlla wi sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na ida bu lekkee taxaaman aw ñam laayaqa mu mar asaabixahu ay baaraamam ak salaasa yet yet xaala ne te mu ne ida saqatat ndeem rot na luqmatu ahadikum tibub kenn fal yu na dindi an ha walis al aza lépp lu ca mën wala yakulha dana ko lekk wala yataxa bu mu ko bàyyee li seytaan ñëw seytaane wa amara tam digli tam an tuslata bu dee fi njëdd baa bu dee fi mor alxasxatu bagaan nga xaala ne fa innakum naka yéen laa taddoona du ngeen xam ci ay taxaamikum ci ana fu nekk ci seeni ñam albarakatu barke anas daa yàgg bëkk néegu yonent bi moo net li ne yonent bi day bu ma saa lekk ba àggal day mar ñetti baaraam yi nga xam ne doon lekkee boroom saraa bi ne dafa am ñuy seexlu mar seeni baaraam te boo ko dee seet la taq ca baaraam ya mu ngi bokk rekk ca ñam wa lenn la ca lu ci mën di am rekk jékki-jékki fab say loxo daal di koy raxas te mëroo ko yàq aw ñam la te it na addis ba waxee ndegam xamoo barke ba fu mu nekk man naa am barke ba nekk ca loolee taq ca baaraam ya xam ne soo ko maroon jot ca barke ba soo ko marut nag kon di ñàkk barke boobee te yàq moom ak lu mu tuuti tuuti rek dafa baaxut mu ne danaa wax itam ne ku ci tibbati mu rot bul ko wacc noona ne duma ko lekk ah kay na seet boo xam bu fekkee am na lu ca taq loo xam ne bu ko lekkaalee mu ko dara mu dindi loola te lekk tibb boobee ndax loolu lépp pexem seytaane seytaane ci boppam mooy def booy lekk mu bëgg laa yàqal fexe ba sëb tibb rot ndax nga wacc ko bañ koo lekk mu ne kon nag ku ci tibbati mu rot bu mu tax mu wacc ko mu xool rek bu ca gisee lu mat a dindi mu dindi ko daal di koy lekk waaye bu mu ko bàyyee mukk seytaane daana wax ne itam ndab li ngeen lekkee leen ko ñëdd ba mu set baa ngeen tabas ko sax bañ a bàyyi dara ca la ca des ci aw ñam ndax xamu leen fa ci yàlla def barke ba maanaam xamu leen ñam wa fu ca barke ba nekk loolee ngay xeeb mu des ca taat ndab la nga di ko bàyyi boo demee ca la barke ba nekk waxaan abi hurayrata radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam qaala maa baxasa mësta yónni allahu yàlla nabiyan benn yonante illaa raa ndare mu sàmm alxanama ay gàtt qaala wax asxaabu ay saxaabaam ne ko wa anta yow nag wa anta boobu day laajte fa qaala mu ne leen naxam waaw kuntu nekkoon naa arxaaxaa di sàmm gàtt yooyee xalaa xaraarita ci kaw ay weccet li ahli makkata ñeel waa makka rawaahul buxaari yu day tudd waxlu yonante bi mu ne abu xurayra ne yonante bi daa waxoon ne yonante bu yàlla ba saa yónni rek jaar nga ci sàmm ay gàtt ay saxaabaam ne ko waaw nag mu ne ba man mii sax daanaa sàmmal waa mag ay gàtt ñu may fay payu tuute tuuti lu bokk ci weccetu xaalis xaraar it niñ ko waxee woon tey doon lu tuuti ci yeccatu wurus ba xaalis am itam ñu ne barab la ba tey mel ni daanaa leen sàmmal ñoom waa màgg ay gàtt ci barab bu tudd xaraar it wa an xujële ci abu hurayra ani nabii sallallahu alayhi wa sallam qaala law doxitu doonte wooyee na ma ilaa guraahin jëm ci ab yeel aw diraahin wala ab xasab la ajabtu kon ma wuyye kon ma wuyu wala uhdiya doonte joxe foon na addiye illee jëm ci man diraahun ab xasab aw kuraahun wala ab yeel la xabiltu kon ma nango rawaxul buxaari yu boo fekkee daal ab gàtt mbaa dara weewa mbaa yeel gu sus moom daanaka du am dara ci njëriñ yonent bi ne loolee nag bu ko xeeb ndax man day ku war a woo mu wër mu ne lu toll noonu képp nga may wooye it du tee ma wuy la buñ ma ko joxoon addi itam ngir yàlla ma nangu rek waxan anasin radiallahu anhu qaala kaanat nekkoon na naaqatu rasulillahi naagu yonante yàlla wi sallallahu alayhi wa na laatus baqu defu ko mën a mu ne boog laa takkaadu du xaw tus bokk ko mën a raw fa jaatu dikk arabiyun sàmm arab xalaaqa xooj warukaay la woo ñeel ko fa sabax xaate jiitu naaga yonante bi fa choq ca tiis dalika loole alal muslimina jullit ñi xataa xarafahu ba mu xam ko mu yonante bi fa qaala mu ne leen xaqun àq la alallahi ji yàlla an laa yartafiya mu bañ yëkkatiku cheyun dara mina dunia ci àdduna illa wadaxahu ndare mu sippi ko rawaahul buxaari yu anas yonante bi dafa amoon naagaam goo xam ne siiw la ñu koy tudde alxabba mu gaawoon loolu ba nga xam ne daanaka genn naaga mënut rawanteeg moom am benn bis nag sàmm arab ñëw rek war ci ab warukaayam war ci gëleemam daal di raw naaga yonante bi loolee nag di saxaaba yi yonent bi naagaam gi dara dawu ko raw tey kii ñëw rek war këli moom raw ko loolu daa gis ci saxaaba yi ba yonent bi xam ne lii kat métti na leen mu ne leen mu yàlla mooy def mu yëkkati ci àdduna rek bañ ne noonu la faaw mu bëtiku suufeelaat ko teg ko fi suuf bañ xam ne yàlla fonkul àdduna baabu tahrimil kibri lii mooy buntu araamal rëy wal ijaabi ak naw bopp qaala allahu taala tilka loolee ad mooy kër ga al axiratu bi di aju mujj najxaluhaa danañu ko def lilladina ñeel gaa yi nga xam ne laa yuriduuna duñu namm xuluwan ak kawe mbaag rëylu fil ard ci suuf wala fasaadam di caag ak yàq wala xaaqibatu te mujj ñu sant mujj rafet ga lil muttaqina ñeel na wala ñu yàlla kon ma nga ca suratul xasas laaya ba tolloog juróom-ñett fukk ñett suñu boroom ne kër gu alaaxira gi nga xam ne moo am solo day maa ngi koy jagleel ñi nga xamee ne bu nekkee ci àdduna duñu réewlu dañuy defar te duñu yàq ñooñu lay jagleel teraagal kër gu alaaxira googee faaw nag ñu ragal yàlla di moytu réewlu di moytu yàq ñoom rek ñuy am mujj gu rafet xaala taala wala tamshi bul dox fil ardi ci suuf si maraxan mbir mu koy amee si maraxan am ñu koy ixraabi xaal mooy maxnaam daa maraxin am na sax ñuy jàng marixan ismu faaxil mi bi kasri mu ngay aji si gëre mu nga ca suratul isra laay ba tolloo fanweer ak juróom-ñaar suñu borom ne bul dox mukk ci suuf di fukk réewu wane sa bopp ne toll nga nenn wala tusaxir bul jëngal xaddaka sab lex lim naa si ngir nit ñi waaye maanaam xëy na xalim naa si wala tamshi te bul dox fil ardi ci suuf sa maraxal boobu ngay boroom sigre naam pokkaréwum inna allah naka yàlla lay waxe bu du sopp kulla muxtaajum cëpp aji daagu wala aju pokkaréewu faxoorin ku di ab damuwaa wala ca sool luqmaan laaya ba tolloog fukk ak juróom ñetteel wa maanaa tusaxiru xaddaka linnaasi tayit ay tumiiluhu nga di ko jàngal moom lex ba di ko wëlbateeka dumóoyu wa tuumar ya dub te muy dëbdëbu bi ak lex ba anum naa si walis nit ñi takkab buran ngir rëylu wal maraxu al tabax turu ak punk réewu ca dénkaanib luqumaan ba mu ne del mootu dox nit ñi leen du ko jàppale du say nawle tomb nga leen a xool ndax muy say loolu wattu ko wattu la dox itam di puukarewu di wane sa bopp ndax yàlla bëggut ko dox di daagoo ko puukarewu wa qaala taala inna qaaruuna naka qaaruun kaana nekkoon na min qawmi Muusa di bokk ci nitu Muusa fa baxaa te mu bew alayhim ci seen wa aataynaahu te nu joxoon ko minal kunuus ci ay xeeti koom maa loo xam ne inna mafatixahu naka ay ceeb ceeboom la tama u danañu diis la tama u bil usbati ci mbooloo ma ulil ma di boroom kàttan id xaala ba waxee loxoo ñeel xaaroona xaw ma ko nitam ñu ne bu bëgg dugum pëgg réew inna allah naka yàlla laa yuxibu du sopp alfarixiina mooy bëgg ngeen bëggum pour que réew mu nga ca suratul xasas ba tolloo juróom-ñaar fukk juróom benn ilaa xaw li ba ci wax bi taala fa xasaf naa te mu ruuf loolu te mu moddloo bi si ci xaaroona wa bi daarihi ak ci këram nga al arda suuf al ayaat mottali laaya ya ba tey nee na daa bokkoon ci nitu Muusaa yàlla may ko ci alal loo xam ne bari bi daal yéeme ba nee na mu caabi yi nga xam ne ñoo tëj ko tijji fa alal ma nekk jëmmi caabi yi rek mbooloo àttanu ko nee na ñu ne wax ne rek alal ya daa bari bari boo xam ne ñuy sàmm alal ya mënuñoo xam ne fa mu nekk ak bu ñu koy saytoo ko toppatoo ndax bari ba moom xaaroon na moomu nag alal ju bari ji ak xam-xam bu bari tax koo bew di pukkariwu ci kaw Muusa ak ay nitam dañ koy dénk naa ko waa ji bul bég bégum pukkariwu bul wane sa bopp nga yëg sa bopp yàlla bëggut ku mel noonu mu ne ah lii dama koy yelloo rek yàlla daa xam sama daraja ak sama xam-xam xam ne maa ko yelloo mu jox ma ko rek nee na ma nag yàlla mayoon na ko gannaaw Muusa ak Haaruna moo gënoon a xam téereb yàlla bi di tawreet boo toppee laabiré nag lañ ko wax ci laabiré ak la mu tontu fa mu daanoo rek mooy yàlla daal di wax suuf ne ko moddal Haaruna ak këram ak lépp lu mu am suuf topp ndigal daal di modd Haaruna lépp lu mu amoon وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل ددق الجنة الجنة من كو خمني كان نكنا في قلبه في قلم مثقال ذرة لتون أو سنغلين من كبر تجري فقالت وخرج بالله نكو إن الرجل نكواجة يحب دنا صوب ay yakkoona bu nekkee taw bu xoo malaanam xasanam di aj rafet war na awlu ko dàll ko yàlla jamilun rafet la yuhibbu dana sopp aljamaal ab taar al kibru rëy batarul xaq moo di rëyu dëgg wa waxam tum si ak xeeb nit ñi abdullahi ibnu mas'ud moo ne yonent yàlla dafa bañ mu rëy lool ndax moo ko jagoo moom rek ba ku ci am dara lu mu tuuti tuuti ba toll ne aw sangaleem dala may moom yàlla nga dugg àjjana benn waaye nag waaw nit moom bu bëggee lu rafet ni ki waajtaayu rafet ay wéeréem ak ay dàllam ak la waaj rafet loolu baa du rëy mu ne ko déedéet yàlla dafa taaru te bëgg lu taaroo kon ku bëgg ay yéreem ak ay dàllam ak la muy rafet te lew booleñ rek kon ku bëgg waajtaayam rafet moo xam yére yaa moo xam dàll yaa moo xam leneen la daa bëgg rek lu yàlla bëgg taamu lu yàlla taamu ndax yàlla dafa taaru te taamu lu taaru dëgg dëgg rek mooy rëylu dëgg maanaam bu déggee dëgg dana ko wóor ni lii dëgg la waaye rëy tax mu gàntu ko du ko nangu ak a xeeb nit ñi yooyu yaar dégg-dëgg doo ko nangu ak xeeb nit ñi yooyu yaar la ko moo rëy moo tax mu ne batarul xaqi rëylu dëgg daf moo di ak jiñam waradduhu akub delloom xalaa qaa'ilihi ci aji waxam ja waxam tunnaasi xeeb nit ñi ixtiqaaruhum moo di seenu xeeb mooy rek nga dégg nit wax loo xam ni dëm nga ne moom dëgg la wóor na la nattaliwoo ko rëy tax nga weddi ko ko ne ko du noonu ak a xeeb nit ñi yow la ne ko moo di waxan salamata bunil ak waay radiyallahu anhu anna rajulan naka waay akala lekkoon na inda rasulillahi fa yonante yàlla ba alihi wa sallam bi shimaalihi ci ab càmmooñam fa qaala mu ne ko kul lekkeel di yem ci sa ndeyjoor qaala mu ne ko laa astatiyu duma ko man qaala mu ne ko lasta taata yàlla boo ko mënati maa mën a xofoo ko lekk bu ndey jooram inul kibaru dara rëy xaala nee na rafaxaa mënta yëkkatiwaat loxo ba ilaa fii jëm ci gémmiñam rawaaxu muslim ku ñu wax salamatu moo ne daa am benn waay bu doon lekk fi yonante bi di lekk càmmooñ yonante bi ne ko lekkeel sa loxob ndeyjoor bi mu ne ko mënuma ko yonante bi ne ko yàlla boo ko mënati fekk na daa xam ne mën na ko rëy rek moo tee mu def lim ko wax mu ne ko yàlla boo ko mënati ca la jaare nag mënta yëkkati loxob ndeyjooram boobee mu jëm ci gimiñam waxaan حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت دقنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ألا أخبركم نخدم الانخبار بأهل النار تي وصورة كل عطل موي كيب كوي أجي جاغ jawwaazin ku di ab kon al jawwaaz nee nañu mooy al jamoohol manooxu koo xam ne day xëri ci dajale alali àdduna te du nangu dara génn mustakbirin ku di aji reylu muttafaqun alayhi wa taqaddama jiitu woon na ak leeralam fii baabi daafatil muslimin ci buntu daafatul muslimin ku ñuy wax xaarisatu mu wax bin moo ne déglu yonent bi mu ne téema a wax ñay dem sawara laata ñu koy wax waaw mu daal di koy wax fi saas ne leen mooy képp koo gis mu jàgg lool rëy lool xir lool ci dajale alali àdduna te du nangu dara génn ku mel noonu rek mu nga bokk bokkandi ca waa sawara li fekk yàlla dabaatulu ko ci yërmandeem génne ko ca noonee mu mel addis boobu weesoon na ko ci gannaaw ci wàññub addis bi ma nga tolloo nag ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñaar waxan abi saidin alxudri radiallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qaala ixtajat xulonte woon aljannatu ajjana wan naaru ak sawara fa qaalat te wax an naaru sawara fii ya nekk na ci man aljabaaruuna nota ak kon ya maanaam waroom doole ya ragalul yàlla wala mutakabbiruuna ak wëy rëylu ña wa qaala te wax aljanatu ajjana fii nekk na ci man doxafa un naasi way doy di nit ñi maanaam way néew doole nit ñi wa masaakiinuhum ak seeni miskiin faqadaate atte allahu yàlla baynahuma seen diggante ne ko inna ki naka yow inna ki aljannatu yaay ajjana rahmati yaay sama yërmande arxamu ci yow man ka nga xamee dana ma soob wa inna yow annaaru yaay sawara xadaabi yaay saag mbugal uhadibu ci yow man ka nga xamee ne achaaw dana ma soob wali ki lay kuma te ñeel na képp ci yéen ñaar xale ya ci loo xam ne maa ko warlu mil uha ak feesam rawaahu muslim abu saxid ne yonent bi day daa mës wax ne àjjana ak sawara dañu doon damoonte ci kanam seen boroom sawara ne man day waroom doole yu jàgg yi ak kër yi man la leen yàlla féetale maa leen di daloo àjjana ne déedéet man mi yàlla féetale ña néew doole di ay miskiin mat a xettali man kay la yàlla féetale ndam la yàlla da leen di àtte di leen kenn ku ci ne am nga mënoore ndax yaa nga ca faala teg